njëkk dañuy ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla daxal ñu ko mu génn fii ci senegal génn Afrique génn Europe Asie Australie génn àdduna bi yëpp Amérique génn adduna bi yëpp muy réew jullit ñi mu yeneen réew yu dul jullit yëpp na ko génne incha allah ndax yàlla moo ko wax ci alquran wattaqu la wax wattaqu fitnatan la tusibanna lazina zalamu minkum xassa nee na daw ba xër ñett fitna ndax ay ni ko wolof di waxee du yem ci bopp boroom kon nag lii moom xejul ci nit ak nit ki lu mu mënta doon xejul ci nit kon nag musiba la balaa la dañu ñaan yàlla subhanahu wa yàlla daxal ñu ko lii nag Masamba moomu ko ma Madamba moomu ko ay nit a ko moom sénégalais yoo ko moom nguur gi taxaw na taxawaayam bu mot sëkk mooy lan ministre de la santé gis nañu fan yi taxawul yendalul fanaanalul docteur yu gën a mag fii ci senegal gis nañu ñu ngi ay def ay waxtaan ñu ngi taxaw guddi ak bëccëg di def loolu euh, gis nañu démb xama barke démb déclaration président de la république mu wax ci lu am solo loo xam ne moom moom moo ko amee yàlla moo def loolu euh, yàlla moo wax ci alquran qul illahuma malikal mulk tuutil mulka man tasa wa tanziul mulka min man tasa wa tuizzu man tasa wa tuzillu man tasa bi yadikal xayr innaka ala kulli shay'in qadir yàlla moo ko jox taraanga boobu muy wax ñuy dégg di jëfee dégg naa keroog muy wax di ci joxe ay ay exemple yu yu yu yu yu baax nee boo nuyoo nit loxo dafa jege kanam te bët a ngi ci kanam bakke na ngi ci kanam gémmi na ngi ci kanam donc foofu lay feebar di duggee donc loxo ak kanam dafa jege kon nag na moytu loxo bi nañ ko def mooy ala kulli xaalin saa yoo demee ñëw na raxasu njëkk nga sangu ala kulli raxasu nga wàññi nuyoo yi ndax yàlla moo xam fan la nekk waaye nag li olof yi wax fagaroo gën faju ala kulli nañu continuer di raxasu di désinfectant bi nga xam ne bari na tey mu ngi ci pharmacie yi ala kulli nañ ko di jëfandikoo ñu wàññi ala kulli xaalin bi loolu man ànd naa ci gis-gis bu baax la gis nga boo wàllee nit te nga tey ko ala kulli xaalin daanu yàlla yu bari mu sa kaw boo ko teyul nag ala kulli xaalin wala tazuru waziratun wizra uxra ala kulli kenn du jëlal kenn bakkaaram d'accord waaye boo ko teyee ala kulli am na yeneen yu ci am euh, balaa dogal bii di am sax ñun xalaat nañ ci lu mel noonu lépp lu ñu doon def di si rassembler ay nit dañ koo bàyyi akaza balaa ndogal bii di am ndax xel yu rafet yi comme ni ko wala fi di waxee montoor yu baax yëpp bokk heure wax yu noppi nag ndogal bii ñëw na tegu ci buñ ci naroon benn léegi dañ koo jël au sérieux fukk lépp loo xam ne xew-xew la muy ndaje ndaje bu mag yëpp dañ koy moytu kii jóge fële kii jóge fële kii jóge fii sax dañ koy moytu ndaje bu mu munta doon nag dañ ko moytu waxuma laak ay assemblée générale waxuma laak ay ziyaara wax ma laak ay conférence yëpp mu nekk nii liñ ci doon dox di ci wax sax dañ koo teg ci suuf si ñu toog bu fa ay nit doon ñëw bari loolu dañ ko wàññi kenn ku nekk tamit dañ ko dugal boo dañ ko diggal boo ñëwee julli jógal dem sa yoon lépp loo xam ne contact day am contact bu yàgg ñun suñu bopp sax ñoo koy njëkk a alaa kulli wàññi fii fii nag bërëbu këru diine la dañu koy saytu rek di ko wattu waaye moomuñu ko ñun ak jullit ñëpp ñoo ko bokk ñun nag ñoo fi nekk yàlla teg ñu fi ñu koy wattu di ko organiser dañ fexe organiser ko ba nga xam ne yàgg-yàgg bi du fi am rassemblement yu bare bari te yàgg du fi am kenn ku nekk gis nga fu mu nekk nit fii daawul mel nii dafa doon bëri nit mais boo ñëwee ziyaare da dem sa yoon boo ñëwee julli bu ñu sëlmalee nga dem sa yoon